gën sant bu baax ci dég digal gi mu dégal xutba bi barke bu xutba bi dégg gi rek suñuy nopp doy nanu daja des nag moom euh, ma des wax lu ñu waxutoon dëgg la xanaa fàttali ak soññ rek loolu it mën naa bañ a gudd loolu it moo di rek nu gën a góorgóorlu bu baax ci suñu góor góorgóorlu ci sàmmonteeg moom bu baax a baax suñu kem kàttan góorgóorlu itam sàmmonteeg suñu taalibe la cay suñu kem kàttan góorgóorlu itam bu baax suñu diggante ñun jaam ñi góorgóorlu baax ci suñu jëflante suñu jëflante yépp ñu ko sonne góorgóorlu ci bu baax ci nu mu gën a rafete jëfe makaarimul axlaaq yi maanaam di jikko yu tàdd wan gannaaw itam safaan yi diggante boobu rek góorgóorlu bu baax a baax sax ci sant sunu borom moom mi sëriñ bi sax ci sant sëriñ bi moom muy sunu lépp tey ak ëllëg dëkk sax dakk ci wéete sunu borom ci lépp sax dakk ci doyloo sëriñ bi suñu digganteeg moom ci lépp sax dàkk nag ci góor góor bu baax nag sàmmante suñu diine rek sàmmante suñu taalibe loolu rek mooy li ci am solo ñu ngi sant bu baax baax bokk yi sant kilifa yi sant taaliba yépp sant bokk jullit yi ci taxawaay bi nga xam ne waxtu gu nekk ña nga ca taxaw temm ci diine ji taxaw temm ci taaliba gi ndax taaliba gi diine ak taaliba rek moo koy mottali moo koy rafetal ndax taaliba lu lépp looy def di ko def te yàlla tax mu bëgg mu mu mu jëf lu baax di daw lu bon te yàlla tax di wattandi ko bu baax safaan ba ci lépp luy xeet ak lépp loo xam ne ñett rafetul lu góorgóorlu ci bu baax a baax di ko sàmmil teeg moom loolu rek mooy li ci am solo kon fàttali rek la ak soññe góorgóorlu bu baax ci li mu fi indi muy jàmm yàlla rek la ca dolli ko mooy liggéey sëriñ bi yàlla tax dañ ci góorgóorlu bu baax loolu moo nu jig moom ci lañ mooy suñu njariñal tey ëllëg mooy suñu biir suñu njariñal biir bitti ci la suñu mucc mucc nekk muccu tey nekk ci la suñu muccu ëllëg nekk kon nañ góorlu bu baax a baax a baax suñu yitte jépp nañ ko def ci jublu yàlla ndax loolu lépp mu ngi ci jublu yàlla ne suñu yëtte jëpp ne yittewoo yàlla rek alhamdulilahi rabbil alamin sant bu baax ci tawfeex jure ji nga xam ne suñu borom defal na may def may na ko sëriñ bi sëriñ bi moom yittewoo sëriñ bi mu yittewoo yàlla rek jublu sëriñ bi mooy mooy jublu yàlla rek ndax bàyyiwul dara ci digg ba borom kon lépp lu mën a doon eh, noo ngi ñaan bu baax a baax gannaaw ba nu santee suñu borom noo ko ñaan bu baax a baax a baax mu gën a fab suñuy nas gën koo dénkal sëriñ Tuubaa sëriñ bi wommatal lu boppam lu ci def lépp na kon ak cant rek la war a doon ak sax dàkk ci góorgóorlu suñu kéem kàttan ñi ngi sant ñépp ñi ngi sant bokk yi kilifa yi mbokki taalibe yëpp mbokki jullit yëpp kilifa yi yëpp ñoom sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax taxawaay bi benn rek la noo ko bokk muy nekkal fi nekkal nekk nekkal fi yàlla ni mu ci lim mu fi indee sax dàkk ci jaamu yàlla rek ak ak ak liggéey sëriñ bi ci lépp suñu lépp baax lu baax te yàlla tax loolu rek na nekk ci diggante boobu rek li ci lépp nag mu am ci rafet njot am ci xel mu dal gën cee gën am yaakaar loolu rek la jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax a baax di am mbégte bu baax a baax ci taxawaay yi xam nañ ni taxawaay yitte ji yépp mooy sëriñ bi yittewoo sëriñ bi nag mooy yittewoo yàlla rek kon jërë ngeen jëf fa tabaarakallah bismillah ngir amiin amiin